beneen bi ci topp mooy objet yi conférence bi ndaje bi du lenn lu dul rendre compte sénégal yi ci mission bi nga xam ni mën naa ne président la république ak premier ministre Amadou Ba yónnee woon nañu ko Qatar pour ñu dem waajal arrivé Lions yi ci Qatar ci coupe du monde bi nga xam ni moom la ñu jëm ci novembre incha ak décembre deux mille vingt deux président la république son excellence Macky Sall moo ñu tegtaloon ay mën naa ni indication ak ay euh, orientation pour que ñu mën a jël matukaay yépp pour que équipe national bu Sénégal ci mondial bi mën ci bokk ci mën naa ni ci domaine bu mucc ayib mooy que matukaay yépp ñu jël ko ba équipe national mën a participer am participation de qualité ci coupe du monde bi ñu jël ñépp xam nañu ni président de la république dafa bëgg football mais aussi dafa intéressé wu ci football mais également dafa bëgg Sénégal fu muy teew mu teew fa teewaayu qualité moo tax coupe du monde bi dafa nañu bëgguma ci dégg benn problème organisation jël leen seen matukaay pour que participation Sénégal nekk une participation de qualité et loolu sur tous les domaines moo tax président la République lépp lu ñu ko ci présenté muy budget muy disposition daf ko valider mën naa ni sans am lenn lum ci di wàññi wala lu ci dindi loolu nag yaakaar la ak kóolute kon nit nag su fekkente ni dafa am ci yow yaakaar muy sa kilifa am ci yow kóolute la confiance se mérite moo tax ma ne nañ jël suñu matikaay au niveau du ministère ñu dem xool lépp lu ci wax war luñ ci war a taxaw lu ñu ci war a jël comme disposition ñu jël ko yàlla dogal na fédération sénégalaise de football demoon na mission ñaari yoon Qatar mais ministère bi mu ngi soog a dem mission pour xool matukaay yi ñu jël pour que équipe bi nekk dans d'excellentes conditions moo ma ànd ak waa fédération mais également ànd ak le directeur de la haute compétition ànd ak le DAGE mais également waa CNOS waa fédération sénégalaise de football même les supporters sax waroon naa ànd ak ñoom pour xool aussi sites yi nga xam ne fan lañ leen di héberger mais daal yàlla suturaal nañu mën naa ni lépp li nga xam ni président euh, bëggoon na ko ñu jël ko matukaay tey mën naa ni fi ñuy waxee matukaay yëpp jël nañ ko pour que Sénégal mën a participer ci coupe du monde bi dans de bonnes conditions. dire que le budget qui a été élaboré pour la participation du Sénégal à la prochaine coupe du monde jusqu'à la finale est évalué à 14 milliards de francs CFA. Et je dis bien jusqu'à la finale, mais phase La première phase, la phase de préparation et du premier tour et évaluée à 7 milliards. Et la deuxième phase, naturellement, quart, huitième, quart de finale, demi, jusqu'à la finale, évaluée à 7 50 Et naturellement, le président de la République nous a réaffirmé naturellement sa disponibilité. Et naturellement, pour la finale, il me dit, si vous êtes en finale, la porte est ouverte à toutes les possibilités. Donc c'est pour dire simplement que c'est adressé au Lyon, pour dire simplement qu'une fois en finale, naturellement, le président de la République est prêt à mettre tout le budget du Sénégal pour que la coupe vienne au Sénégal. Donc en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Comme je l'avais dit, hein, en toute transparence, donc le budget donc pour la participation du Sénégal est évalué à 14 milliards, mais phasé. Et la première phase est, euh, tour, euh, est comment s'appelle, évaluée à 7 milliards.